Omar Diarra maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. Omar Diarra nga bokk ci collectif euh, des travailleurs de l'entreprise Premier Bet euh, ñu ñuy xamal ni euh, ñoom daañu tëj entreprise bi ci an juillet bile est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun lan moo xew exactement ba ñu bëgg a tëj entreprise bi. waaw moom li xew moom ñun ñoo ko yëgandoo presque parce que benn message la jot via WhatsApp. bu ñuy wax ne le 31 bi Paris Foot day tëj ndax dafa am problème ak fisc bi pour état du Sénégal. léegi loolu ñoom euh, expliqué woon nañ leen ko avant wala yéen euh, dañu jékki-jékki rek lancer leen message bi comme ça. expliqué wuñ ñu dara dañoo xëy rek jot message bi noonu le 24 bi passé nañu le 31 dañuy tëj le 24 à midi sax lañ ko jot. Mhm. Mhm. Euh, tey jii kon ngeen euh, mbir mi concerné ñaata liggéeykat et aussi yéen si lan ngeen di yëngatu ci wàllum premier bet euh, si entreprise bi. Mhm. waaw mbir mi moom toll na ci lim bu takku ndax huit cent sept cent quarante quatre voire huit cent personnes ñu ngi ci woon di daan seen doole activités yi nag amoon na ay chauffeur amoon na ñiy jaay ñi nga xamante ni ay caissier lañu ñooy jaay produits yi première bet yi nga xëy rek envoyé ñooñu message ne leen le 31 bi da tëj. Hmm. Euh, hmm. tey jii bu fekkee ñoom euh, tëj nañu tëj nañu ba pare sax parce que 31 hmm. juillet je pense que euh, benn fan moo si des lan mooy nekk conséquences yi nit yi dañ dul mën a tey jouer pari lan mooy xew exactement. waaw nit ñi ah xanaa nit ñi dinañu mën a jouer mais ci yeneen euh, société yi euh, yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekkoon euh, mooy ñi ñu doon concurrence al comme xbet xam naa ni fa la nit ñi di mën a jouer mm-hmm. mais ñun moom dañuy tëj d'accord ma ne conséquences yi lan lay doon surtout yéen si seen niveau ñaata liggéeykat ngeen ak ah, lan ngeen liggéey exactement waaw si oh. premier bet waa li ñuy liggéey moom mën naa ne mooy pari sportif rek noonu la ñuy liggéey ba pare bu tëjee conséquences yi moom dina métti trop ndax ay borom kër a fi nekk yor ay njaboot ñu war ñu ñu war a dundal war a fay location war a fay ñëpp ñooñu boo xëyee ne leen dootoo leen liggéey dina métti waaw. mais est-ce que yaa ngi wax 700 wala 800 travailleurs est-ce que aussi nekkoon ngeen ci condition liggéey yu baax est-ce que entreprise bi doon na respecter seeni droit euh, condition liggéey yi moom tane woon na rek parce que entreprise bi des fois mu exploité ñu ci exploitation yoo xamante ni mooy mooy loolu dafa doy waar daal. Mm. ci côté salaire yeeg ak respect beeg yëpp. parce que souvent loolu la ñuy jooy ci entre privé entreprise privée yi ñëw Sénégal dañ fiy fekk doomu réew yi duñ leen respecté dèjà ñàkk ñoo respecté rek mu ngi mu ngi nii mooy xëy toog ba le 24 envoyé message WhatsApp naan ñu le 31 damay tëj waaw. Hmm. est-ce que ñi fa doon liggéey amoon nañ ay contrat wala waaw. waaw ñi fi doon liggéey am nañu ay contrat mais contrat yi tax ko woon demee noonu. parce que mënoo def ci entreprise fukki at ñu ne la contrat prestataire nga am. am na ñu ci am CDI mais bëriwul vingt cinq pour cent lañ. te vingt cinq pour cent yooyu ci am CDI CDI yi ñu leen jox baaxul. ndax CDI yooyu amul signature inspection du travail amul signature directeur bi. d'accord léegi euh, yéen si lan ngeen doon yëngatu exactement si kiosque yi ngeen nekkoon pour nga expliquer ma ñu xam euh, lan ngeen doon liggéey si entreprise waaw dafa entreprise yi ñun dañ ci ñun ay manager lañ ci hmm. ñun ñoo doon gérer ñi nga xamante ni ñoo ne ci kiosque yi ñun fu ci nekk manager bu ci nekk dafa am kiosque bu ñu lay délégué boo xamante ni yow yaa fay nekk yaa fay représenter direction bi hmm. Hmm. Ah, léegi ban appel nga yéen da ngeen a bëgg entreprise bi fay leen seen droit wala lan bu fekkee moom mënatul dem parce que mënul fay fisc yi ah, lan ngeen bëgg exactement. waaw ñun li bëgg exactement mooy mu fay suñu ay droit mu fay suñu ay droit balaa ñuy dem bu fekkee tamit état Sénégal mën na ko négocier ba ñoom ñu continuer waat. ñun tamit bëgg nañu continuer waat suñuy liggéey sur des bases yu leer très clair parce que mënuñu fi def ay dix ans ngay am ay contrat prestataire euh, tey jii fas yéene ngeen def ay action marche sitting wala lan euh, pour euh, seen problème bi. nguur gi mën si taxaw. waaw loolu ñu dox ñu ci dox ay jéego nu mu gën a gaawee. déposé nañu papier yi ndax bëgg nañu def marche boo xamante ne dañuy commencé Sacré-Cœur ba RTS. Euh, tey jii bu fekkente ni nguur gi fi toog ñoom seen sas mooy utal ndaw yi xëy euh, tey jii yéen ngeen bëgg xëy sept cent wala huit cent xam nga bari na ñàkk seen mhm. xëy comme ça ban appel nga ci lancer autorité yi waaw appel bi ñu ciy lancé autorités yi muy son excellence euh, le président de tous les sénégalais monsieur Bassirou Diomaye Faye ñu ngi koy ñaam ci nu mu gën a gaawee nañu dimbali taxawul ñu ci loolu bu fekkee moom am na moyen yu mu mën a def ngir sauver ñu entreprise bi parce que lu mu bon bon doomu sénégalais yooyu ñu ngi ci doon am occupation di jàpp ci dara mu dimbali ñu ci ñu mën a trouver waat solution am liggéey. Mm-hmm. Uh, ñu ah. bari sax bu ñu déggee mbir mi dañ naan bu fekkee entreprise bi ci wàllum carte xaalis la yëngatu bu tëjee uh, baax na lan ngay tontu sénégalais yi xalaateelu parce que jàpp nañ ni cartum xaalis baaxul. waaw donc sénégalais yi xalaat loolu ñoom dañoo comprendre parce après tout ñun pays laïque la ñu nekk nekkuñu pays musulman. bu fekkoon pays musulman la ñu ne mën nañ ne c'est interdit du fi am mais comme pays laïque la ñu ne ba pare ñoom li ñu umpale ne mooy huit cent doomu sénégalais ñu ngi ci loolu di ci daan seen doole. chaque weer ñu fay weer ñu fay leen ñu dundal seen njaboot fayal seen ay doom jàng dimbali seen i waajur ñu ngi ci. Euh, te entreprise bi liñ ci umpale ñoom it mooy du ay kii rek la am. du du ay kàddu xaalis ak laab mm-hmm. am na ay chauffeurs yu fi mm-hmm. am na ay gardiens yu fi nekk am na ay femmes de ménage euh, tey jii bi ngeen jotee message bi lan la liggéeykat yi yëg seen biir xol ah, ah liggéeykat yëpp seen biir xol metti na ba fu metti yam ñëpp jaaxle nañu ñu ngi jooy guddi ñu ngi jooy bëccëg waaw parce que am ay magum jëmm ci ne ay ñoo xamante ne am nañu cinquante ans jëm kaw ñu ngi ci ñoom ñëpp dañoo am leen metti parce que bu fekkoon sax wax nañ ñu ko trois mois wala deux mois à l'avance ñu xam fi ñuy taxaw mais yow xëy rek brusque mu dal sa kaw nii day metti day metti da lay bett trop da ngay am mbetteel trop te ñëpp xam nañ Sénégal pour am fi liggéey dafa jafe. voilà kon Omar Dramé maa ngi lay remercier bu fekkee amoo beneen appel boo xam ne bëgg nga ko lancer ci côté boobu. waa aussi am na appel bu ngeen lancé. Euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy borom entreprise bi ci boppam parce que. Mm. naka ngay. Euh, avisé huit cent mm-hmm. liggéeykat ci benn mm-hmm. message WhatsApp pour wax leen ni entreprise bi mm-hmm. dañ koy tëj. waaw loolu moom la ñuy ñaawlu moom lañuy ñuy ñaawlu ba fu ñaawlu mën a yem ndax loolu ñàkk respecté doomu aadama yi ngay liggéeyal ñàkk ñoo jox cër. mënoo xëy rek du jour au lendemain xëy rek benn bés huit cent personnes nga envoyé leen message noonu ba pare woo ci recevoir kenn ba léegi recevoir lu ñu waaw moom it ñu ngi koy wax ne ko lu mu gën a gaawee nañu woo waxtaan ak ñun ndax loolu moo jaatu hmm. fi ñu toll ngi xëy wala xëyatu leen arrêté ngeen. ah non ñu ngi xëy. waaw parce que le 31 la suñu contrat war a jeex dañuy ñëw remplir suñu devoir. le 31 di ngeen xëy liggéey. le 31 dinañu xëy liggéey. ba ngoon ci. ba ngoon ba wàcc. Mhm. le premier nag la ñu xamul ndax dinañu xëy. d' accord Omar ah. Dramé ñi ngi lay. Euh, Omar Diarra Omar Diarra maa ngi mhm. lay remercier bu baax a mhm. waaw ah, merci beaucoup ñu ngi lay fay. voilà may fàttali ne jara nga bokk ci euh, collectif des travailleurs de l'entreprise Premier Bet ñu ngi koy remercier bu baax a baax jërëjëf.